No, no, no. Yeah. What's up, what's up, man? Yeah, I tell you, so homie guy, I'm JD Baghdad. Quick touch it negative. Freestyle session, man. Check Aguma, Freestyle Friday. With your homie, Lyrical Locoscat, the Black Arafat, the Punchline King, alright? Quick touch it negative, check Aguma. Denga. Freestyle employer, boy. If I'm gonna land it for Agima, why jail dekan to draw on the brand? Kung tax nga Agima, ndax baagi laay aj ni ay ujaaj te maag bi di leen miir loo xoomi dóor ay njuut njaay live from dina me Medina aj baari comme Makka jàpp rii mi di leen tànk yée nigga araw comme nàkk maa ngi nii ñu ngi ci hóot bi di mu dëgër comme ñàkk mais teewul rii mi ma koy daggate coupé décalé comme ñàkk impro la ñuy def nga yor caméra ka noonu bu Thiès may xool bëtu haters nekk noonu lay jàpp tegee wet Christine Impro tey ngeen jot seen fête ni nga baa ngi nii daa mi da koy dawal ponte ni ay digital bul xam li nu ngemboo xoom yi dafa digital yée tey naa mi di ko dawal jàpp féegi di leen araw flow baa ngi nii lawal ni nga ñoom lay ndawal ni Mouhamed Tyson maa ngi nii booy ni nga taxaw je suis plus ci hip hop bi maa ngi doon kàngaam yée Impro rek def naa mi ngi may réer maa ngi nii taxaw di ko bàcc booy mun naa la si jox añ jox la ci reer yée di gis ay xar ak ko pini bu Thiès ni nga impro MC boo gisatul man maa ko pini baaganoo seen sœur ak seen petite ko pini noonu lay demee ah, dóor raay mi ci nag bi ba mu tàkk tell tekk cil baaraam féegi ni seen daaw ni ay takk till à la